waaye Faranse man na gooru Sénégal ci biir nag laaw la ma faraañse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 la Joor Ngoone Latiir ngir fàttaliku téeméeri li at ak fanweer ak juróom-ñaar gannaaw ba mu daanoo ca Deqle kon dañu yeesalaat nuyoo bi rek ak ziyaara yi ci kippaango yi ñuy safoo xam sam réew support xam sam réew ca Amérique cosaanu Sénégal sàmm sunu mbatiit ba ci daara serigne Moussa Ka nuy ziare Cheikh Abdoul Ahad Ka way di nuyu ak ziara sunu xarit mu sunu serigne serigne Abdou Aziz Touré di khalifa serigne Adi Touré ci Fass Touré waaye di nuyu ak ziara sunu xarit ku nuy bàyyi xel muy El Hadji Malick ci Louga di sant bokk yëpp nga xamante ni ñaar fukki fan ñaar ci weeru octobre bi la seen chaîne bi am ñeenti at gis nañu njañse yi nga xamante ni def ngeen ko muy commentaire yi ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm bokk yi àndoon naa ak yéen ba ci leetar bi nga xamante ni Lat Joor bind na ko gouverneuru senegal bu yees bi jox ko ay ndaw ñu yóbbu ko àndoon nanu ba ba muy wax gouverneur ni ko gouverneur bi nga fi wutu yebaloon na Boel Mokdar Seck ngir mu ñëw ñu waxtaane mbirum raay bi mu ni ko nag moom boole mag daal sekk moomu day am na lu bari lu ma leeraloon lu ma waxoon ci mbirum raay bi loolu sax taxoon na mu fexe ba maag yow nu am ab dëlante muy ab traité ma nungul leen loole ngeen bëggoon te mooy raay bi bàyyi ko ndakaaru ba ndar mu ni ko nag gannaaw ba nu traité boobu nga xamante ni Boel Makhtar dafa ñëw le 10 septembre ñu waxtaan lañu waxtaan poñ ya ñu juboo xaalima jaxati kala moo signé la Joor Boel Makhtar dem ndar yóbbu ko ñu teg ci ñaari fan mu dellu siwaat ngir ñu li liggéey ba mu ni ko nag gannaaw bu ñu xaatibante traité boobu ba noppi waa Kajoor dañoo dal ci sama kaw ni ma daal li nga def waroo ko woon a def ndax am nañu ak jaaxle daal ci bi nu déggee ni nangul nga tubaab yi ngir yoonu saxaar gi bàyyi ko ndakaaru jaar kajoor ngir dem ndar mu ni ko waa kajoor dañu ma ni yow day bi nga nungulee tubaab yi ni raay bi dana fi jaar na la wóor ni booba nga jox kajoor tubaab yi bu fi raay bi jaaree rek na la wóor ni yilif kajoor ndax ñoom waa kajoor de nee nañu ma nit ñu weex yi dañoo bari ay pexe kon waroo woon a nungu raay bi jaar fi mu ni nag ñoom wa kajoor maa leen yilif waaye dama leen a nawloo ndax it wax ubbi waat na sa samay gët def na ci man sax am tiit ci loolu ñu ma wax ne bu fi raay bi jaaree tubaab yi ñooy yilif Kajoor mu ni ko nag man dey tubaab yi xeex nañu ma def nañu guerre ak man te xaw ma lu tax lu ko waral ndax man Lat Joor day jëlaluma tubaab yi dara du ci ñoom du jëluma it seen alal ndax man Lat Joor dey yoraluma kenn dara fàttalikuwuma fu ma leen tooñe yéen tubaab yi walla ma def leen lu dul noonu léegi nag dama bëgg yow gouverneur nga déglu wax ful la nag jot na damay Lat Joor wax naa ñoom ci diplomatie ci teraanga waaye bu mu noppee nag ñu déglu lan la wax gouverneur daf ko ni léegi nag dama bëgg nga déglu ma li ma lay wax mooy raay bi jaar Kajoor moom duma ko mën a nungu Kajoor gi ma yilif daal dama bëgg nga xam ni duma nungu raay bi jaar fi yow gouverneur nag dama bëgg nga déglu bu baax a baax lii ma lay wax déglul lii ma lay wax yow gouverneur ni nga xamante ni bii yéen tubaab yi mënu leen a jël ak gileem ak ay sëfam jaarale ko ci bën bënu pusa xam ngeen ni bën bënu pusa gileem ak sëfam xaju fa ak wëñ rekk a fa mën a jaar mu ni ko nag dama bëgg nga déglu ma bu baax a baax déglu lii ma lay wax ni nga xamante ni bii mënu leen a jël gileem ak ay sëfam jaarale ko ci bënbënu bënu pusa noonee ngeen di mën a ñàkk jaarale raay bi fii ci Kajoor maanaam nee na ko bu ngeen jël gileem ak sëfam jaarale ko ci bën bënu pusa daal na leen wóor ni ray bi du ngeen ko jaarale kajoor mu ni ko nag wala ñoom tubaab bi ñooy wax tubaab bi indi lettre la jor boobu nga xamante ni foofu la jeexee fi mu ko jeexale mooy ni gouverneur boo mënta jël gileem ak jaarale ko ci bën bënu pusa raay bi doo ko jaarale kajoor moom tubaab bi nag mu ni bi loolu amee nag gouverneur ci boppam jël na ab dogal am lu mu bind ab proclamation yónnee ko ñi dëkke kajoor ñépp muy gouverneur bu yees bii la Joor yónnee woon letter bi ñu doon ko wax René Servetus valon, moo fi jógee ñu indi fii René Servetus René Servetus bi mu jàngee leetaru la jor bi ba noppi dafa daal di bind loo xamante ni ci waa kajor, la ko jëmale dafa leen ni e yéen waa Kajoor man de li ma leen bëggal mooy seen jàmm ak seenu dal dama bëgg ngeen xam ni dameel bii di la Joor jaaykatub doole la dafa leen a not li tubaab di wax tiirant walla oppresseur moom la yéen la bëgg a teg ay coono dafa bëgg a nax waa France waaye nag France dana ko jox ku bëgg a nax France la nga yellool ci ay daan France dana ko jox jor, Joor baatu tubaab bu diis a diis diis sax la jëfandikoo muy châtiment moom gouverneur mu ni ey yéen waa nun danoo ñëw ngir jàppale leen ngeen moom seen bopp nguyaay am péexte danoo bëgg ngeen tatagal nu dalal nu ni seeni xarit kon gouverneur ngay jéem a féewale Damel la Joor ak waa Kajoor mu ne leen nag nangul leen nu déglu leen nu te bu leen déglu Lat maa ngi leen di xamal yéen waa Kajoor ni li fekk fukki fan yebal naa ay soldaar yoo xamante ni bii li fekk fukki fan danañu ñëw ci kër Lat te bu ñu ñëwee danañu lakk kër Lat Joor googu danañu dàq Lat Joor génne ko Kajoor ñu ni nag Lat Joor bi mu yëgee loolu waajal na ko dem ci ci diggu Kajoor wa sunu soldaar yi ñu yebaloon egsi nañu Lat Joor dem na Jolof ci Alburi mu ni nag jàpp naa ni Lat Joor sax dafa lëkkaloo ak buurub jolof boobu di Alburi ak Abdul Boubacar ca Fuuta ngir bu nu songee ci Kajoor mën a dem Fuuta walla mu dem Jolof kon Lat Joor génn na nu tàmbali liggéeyu yoonu saxaar gi ndax maasale gi muy nivellement bi diggante soor ak laybar ba gànnoo fàkk nañ ko ñu ngi koy maasale ñi nga xamante ni ñooy bàyyi ko Dakar di liggéey yoonu saxaar gi tam léegi ñu tàmbali seenub liggéey ñi nga xamante ni ñoo waroon a jóge ndar ngir dem ndakaaru itam par mesure de sécurité moo taxoon waaye léegi ñu yebal leen ñu ñëw foofu nga xamante ni bii mooy ndakaaru ndax am na tawat ju amoon ndakaaru joj moo waraloon ñu téye leen ndar waaye ndagam tawat ja léegi tane na danañu leen yabal ñu ñëw ndakaaru ci liggéey bi ñu fi war a def mbokk kon noo déggandoo lettre bi nga xamante ni Damel Lat Joor bind na ko gouverneur Servitus waaye beneen lettre ngi nii boo xamante ni gouverneur Vallon bi nga xamante ni moom la fi Servetus René Servetus mi la doon bind lettre bi moom la ko latjoor bind ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet ci atum junneeg juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar le 25 juillet 1882 la ko Lat Joor bind ki nga xamante ni mooy gouverneur Vallon Lat ba muy tàmbali dafa tudd sell ak màggaangeeg sunu borom ndax ñi wax naan Lat Joor tafsir ma ba jaxu ba moo ko tuubal ñooñu xamuñu Lat Joor Lat mamam maamam Saaxewoor Fatma mo tuub ci serigne makhtar Numbe ci kokki tudde boppam Silmaxa Jóob la jor longor la jànge alquran bi muy ndaw nit ki munta juddu dem njàng alquran ba pare ñu naan dafa tuub ci salum loolu njuumte la kon ci leetar bi Lat jor bi mu tuddé mag mag nga sunu borom daf ci wax ci ko ni ko man la jor di dameelu Kajoor jëm ci ci yow gouverneur valon mi nek Ndar ma ngi lay nuyu nuyu bu sel sama leetar bi ma la yónnee nak dama la ko yónnee di la xamal ni leetar bi ma yónnee woon bi nga ma yónnee woon jot naa ko te ci leetar ba nga doon ma ci xamal jaar gi nga xamante ni bii raay bi bàyyi ko ndakaaru war naa jaar biir kajoor ngir mu dem ndar ca Kajoor man mii maay ki ko yilif ma bëgg nag yow gouverneur Valno nga xam ni li fekk man Lat Joor mii de maa ngi noyyi lu baax rek lay bëgg moom lay wut waaye nag lii nga bëgg de muy raay bi jaar fi danaa taxaw jàmmaarloo ak yow ak doole ju ma mën di am ngir raay bi du fi jaar ndax sa naal wi nga naal muy projet yoonu saxaar wi jaar fi day naal woow gënul ci nun ndax kët ab àll su fekkee am picc seen na fa daakaande walla bu ko gisee ba xemmem ko ba ko lekk na ko wóor ni bu fay jógee dina fa bàyyi lenn ci ay dongam yu bàyyi ko ci gennom moom picc mi bëgg lekk bu taxee mu gis daakaane bu rëy rëy rëy bëgg koo lekk néew ma du ko lekk waaye bu ko lekkee dana fa bàyyi ay dongo yu bàyyi ko ci ab geenam ma lay xamal ni ay ngànnaay moo xam xeej la moo xam lu man di doon ni nu ko bëggee loolu moo tax saa bu ma jotee leetar bu bàyyi ko ci yow te jëm ci mbirum raay bi li nga xamante ni bii moom laa lay tontu moom laa la masa tontu te moom laa wéy tontu mooy déedéet déedéet déedéet mooy non non et non te it na la wóor li sama tontu lii nga xam ne mooy déet duma ko soppi mukk mm, saa boo ma yónnee leetar bu jëm ci mbiri raay bi li ma lay tontu mooy déedéet déedéet maanaam non non non du la wax mukk beneen tontu loolu sax tax na ba soo ma bindoon ab lettre di ma wax mbiri raay bi te fekk man Lat Joor maa ngi nelaw su boobaa sama fas wii di maaloo moo lay tontu te bu lay tontu lam lay wax mooy non no maanaam déet déet man Lat Joor lettre boo ma bind mu jëm ci raay bi déet laa lay tontu soo ma bindoon ab lettre fekk may nelaw itam maaloo sama fas wi tontu boobee ma la tontu woon la lay tontu te mooy déet déet raay bi du fi jaar ma lay xamal ni su fekkee danga ma bind ab leetar te fekk may nelaw nelaw yoo xamante ni bii dafa ànd ak ay gént gént yu jaxasoo gént koo xamante ni daanaka bu ma yeewoo du ma ko mën nettali lan laay def mooy su ma jógee dinaa tifli ñetti yoon ci sama wetu ndeyjoor su ma yeewoo kon dégg kii mooy gouverneur bi fi njëkkoon a nekk lettre bi mu ko njëkk yónnee te ciy bañ raay bi ba xam le ni lettre bu bàyyi ko ci gouverneur sama tontu mooy déet te bu ma doon nelaw maalaw sama fos itam dana leen tontu te déet la leen di wax mu ni bu fekkonte ni damay nelaw nelaw yoo xamante ni dafa ànd ak ay gént yu jaxasoo yoo xamante ni bu ma yeewoo du ko mën a nettali du ma mën xam sax genti gi suma yewo dana tifli ñetti yoon ci sama wetu jor yow gouverneur valon bul fatte mukk ni kaddu yi mooy kaddu yama la waxoon daaw te mu jëm ci raay bi lan laa la waxoon daaw déedéet duma ko nangu na la wóor ni kàddu yi daaw sama kàddu yi daaw yooyee mooy sama kàddu yi ren te it at jëm kàddu yi du soppeeku la ma la waxoon daaw ni la déet ren ma ni la déet déwén déet laa lay wax mu ni nag lii rek moo doon leetar bi nga xamante ni moom la Lat bind ci ñaar fukki fan juróom ci weeru sulet atum 1882 lii wolof yi wax naa bañ ba tëdd ca naaj wa moom la dameel Lat Joor Ngoone Latiir def ñaari gouverneur yëpp dégg nañu li nga xamante ni bii moom la leen Lat Joor wax ci mbirum raay bi wax jooju ku ko dégg xam ni du waxi ab ragal du waxi kuy tiit waaye Lat Joor nag fi mu bokk munta doon ab ragal munta doon kuy itit na ragal wala tit fu ko di jele dana jaaxal ñëpp ndax wala fi ñoy wax ni am tag lu ca bayiko bu nawul dana jaaxal ay bokkam kon jëm ji ñuy fàttaliku ak daanoom muy Lat Joor la Latiir bala may jexal rek daa len xamal ni sunu héros national bi ko am taw feex la mu yàggul rek gis na kuy bind di wax la dior euh digganteem ak sëñ bi neexul ba def don waja dal ci kaw bi ci mbirum xaarab Samba Sadio bi waye lolou wirut Lat Joor mi ñuy wax nii le 27 octobre bi mu xëyee di dem deqale dafa jaar ci sëñ bi tàggu ko sëñ bi jox ko mbubbam loolu itam wérut bis bi Joor xeex ak tubaab yi deqale kere gisul sëriñ Touba ndax sëriñ Touba fekk na jóge na Mbàkke Kajoor dem mbake Bawol septembre 1886 mu sañ ci Daaru Salaam weeru ca topp octobre ci lañu xeex dëqle li am mooy Lat Joor Ngoone Latiir Mbàkke Bawal la ñëw fekk fa sëriñ bi ñaar fukki fan ci weeru octobre bi mu ñëwee mu ni sëriñ bi dama ñëw de ngir bëgg nga ñaanal ma ndax man mi de yëg naa ni li ma desi ci ak dund bëreetut moo tax nag ma ñëw di sàkku ci yow ak ñaan sëriñ bi def xasida goo xamante ni juróom benni bayit la am na doomi bàyyi la Joor jot mi ngi won ci kër sëñ bi mom la ko sëñ mom la ko bi ni na ngeen ko saxlat jor ba mu mokal ko ñu sako Lat jor ba mu mokal juróom benni beuyit ya sëriñ bi jox ko mbubam ak ay dalam tagto ak mom Lat jor dem àllarba ji ca topp di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na ca la daje ak tubaab yi ñu xeex ca Déqale yàlla dogal mu ñàkk ca bakkanam nee ba mu daanoo itam ña ko gën a jige ñoo jël ab néewam nëbbu ko tubaab yi ba gisuñu ko ñoom ñoo ñee itam ñoo ko toppatoo ba denc ko maanaam suul ko te tubaab yi gisuñu ko kon Lat Joor sëriñ bi jox na ko mbubbam ak ay dàllam aku xësida goo xamante ni moo joxe ndigal ne nañ ko sa Lat Joor ba mu mokkal ko ñu sako ko moom la yóbbaale déqale keroog ba muy daanu kon Lat Joor moo ne Latiir jàmbaar jooju yi borom taw feex la ndax mbubbum Sëriñ Tuubaa dalli Sëriñ Tuubaa ku mu mujj ci yow loolu taw feex ju rëy rëy la eh, héros national am jii nag ñu koy jéem a contesté booye boo ñu noppalu ndax di ko jox keneen ndax moom bi ñu ko jox moo jëf lu tax ñu jox ko ko kon soo demee ci mbindum sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ba muy wax ni daanu na ci déqale daf caa teg ni yàlla na ko sunu boroom yërëm kon dammeel Lat Joor ngune la Latiir jëmu jooju nga xamante ni défendre am réewam défendre am goxam ndax ci nettali wax ñu ni ba muy dem déqale ñëw na suuf sama suufus maam si nga xamante ni bii day jaraloon na ma lu ne ngir aar ko tey danaa ko suuxate sama deret la Joor moo lis gor Lat Joor ba mu jàmmaarloog tubaab yi lim ya wuute woon na lool waaye teewul ñoom tubaab yi capitaine Valois wax na jàmbaarug la Joor ndax moo njëkk a soqi ay sox ci seen kaw ba fas yi doon wëgg ñetti fos daanu ca nee nañ itam danoo jigante woon ba puutar yi da doon lakk sër yi nga xamante ni moom la ñu soloon kon daal senegal héros national a ngi noonu li nga xamante ni bii moo ko jëf sunu borom dogal ko ci moom nan ko nangu te mooy Lat Joor Ngoone Latiir Jóob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 daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar